asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu fu ngeen nekk ci àdduna bi rek di togo sëñ Abdou Touré ak mbokk yi sëñ bi yabaloon fii ñu ñëw acc sëñ Saliou Mbacke mom sëriñ Fallou mom sëñ Chouaïbou ak Cheikh Amadou Aboul Baraka mom sëñ Bassirou mom sëñ Fallou ak sëriñ Cheikh Ndiaye surtout sëñ dar Assane Ndiaye sëñ sëñ Cheikh Ndiaye irade ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar sëñ Abdou Touré ñu nekk fi ci dëkk bu mag bu tedd bi nak nag Makkatal Mukarrama nga fas lancer ben message bo xam ne ñu koy tuddee waajal màggal gi fi ci Baytullahi Haram ban message ngay ak ban soññee ngay joxe ci waajal màggal gi sëñ Blaat. asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki taalibe bi yëpp bokki jullit yëpp rawatina bokki murit yi rawatina waa Touba. macha allah yàlla dimbali nañu gi jong jongeenu ba indi nu màggal nu aj. Mhm, alhamdulilah aj gi noppi na ba ban war a dellu. Mhm. màggal nag naka ci lan mës a nekk aj gi dañ ko cee aj gi jeex na dañuy dañuy soobuwaat màggal. alhamdulilah macha allah man ma ma am na ku ko ko defal. alhamdulilah loole mu naroon defal ca ma koy defal ci màggal gi. alhamdulilah macha allah waaw kon daal noo noo ngi waa noo ngi soobuwaat màggal gi ndax noonu waaj màggal duñ cee noonu parce que yéen soobuwaat màggal mhm. fii ci makkatal mu karama. Mhm. la ñuy soobuwaat ak màggal gi jëm Sénégal <laughs> incha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ah bayit la ci sëñ bi soññee loo ciy joxe mbokk yi jëriñu incha allah alhamdulilah rabbil alamin waaw xam nga sëñ bi fañam day day day day day day bëbëstal mhm. loolu wax ne wa kullu ma ajrahu saxsun min amal fa sa yara jasaahu yowmal wajal mhm. lépp lu nu def ci jëf boo ëllëgee dana dana dana dana dana gis fayam mhm. màggal gi nag moom daa waxal ni fu mu fekk nit ci kaw su kaw suuf li ko dale ci ginaar ba ci gëléem lu mu ci mën na ko def ku man na nga togg yaag sa waa kër ku man lu ko nanga toog yóbbu ci penc ma ku ko mënul seetil ku toog nga dugal ci sa loxo mhm. nga xam ne màggal gi karay gëléem ak ñàkk ko lekkal ñoo tolloo daraja ci laa dégg lii alhamdulilah ñaa ko sëñ bay jax de yooyu yooyu ci yëkkati rek la mu waxan ci jumaa si am ci jumaa ji jar na xëy rajax sa bopp toj boole sa yuur ak si moom di tabax li dee si am ci jumaa ji jar na xëy ni rajax sa bopp toj boole sa yu rek sa moom di tabax <laughs> li dee si am ci jumaa ji jar na xëy ne rajax sa bopp toj boole sa yu rek sa moom di tabax mhm. jumaa ji àgg na màggat bi moom moo dul jeex ah kon yàlla nañ ko yàgg waajal te yàgg ko fekke màggal goo ma sa màggal rek ñu ngi ñaan ci barki bëri bu màgg bu tedd bii ñu nekk yàlla nga yàlla na ko gii daax yàlla na ko gii daax te nga del siwaat ma yóbbu la mun ak jàmm ah, <laughs>